Euh, nit ku ne euh, amul sa gox lu dul sa gox euh, wolof da koy wax mbay ci sa wewu tànk te it ñu gis ne dëkk bi kenn du ko defar ñun ñoo koy mën a defaral ak suñu bopp kon tey looloo taxoon tey ñu jëkk njëkk koo tàmbale ci suñu koñ jëmbat fa ay garab def fa ay làmp indi fi tamati fexe ba nga xam ne fi nga xam ne ay taataala woon ñu indi fi ay sar si suuf sëkk ko ci sensibiliser nit ñi ci wàllu masque yi ak sel yi ngir wàccaayu màggal gi ñu jëm ndax dañoo jàpp ne euh, état bi am na lu muy def maire bi xëy am na lu muy def Touba ci kanam ñuy liggéey liggéey bu rëy ci dëkk bi waaye nan leen war a mën a jàppale ci dëkk ci liggéey boobu mooy li nga xam ne kenn ku ne bu taxawee koñam def ca lam ca war a def bu boobaa liggéey bi dana gën a yomb kon maa ngi sàkku it ci responsable yëpp. moo xam sëriñ la moo xam politique la ku fi nekk ci ab quartier nekk ci ab goxit nga fas yéene taxaw ci jëmbat fa ay garab fas yéene tamit fexe ba yoon ya nga xam ne moo ëmb sa koñit nga jëm koo defar bu ko defee buñ ko defee rek dëkk bi bu soob yàlla insha allahu rabbi liñ ci bëgg lépp dana am dana am beneen xar kanam ca dëkkub sëriñ Tuubaa war naa doon dëkk boo xam ne bu set lay doon bu ànd ak ay garab lay doon boo xamee ni bu fi nit ñëweet war koo yem ngir taar bi nga xam ne moom la taar waaw li ñu bëgg a wax foofu mooy président Macky Sall ah, xelam war naa mën a dal ci discours bu mag bi nga xam ne moom la sëñ bi def jëmale ko ci moom ma wax ne dama cee jàngat jàngat bu rëy ci ñun murid yi ñun ñi nga xam ne ay murid leen gëm Serigne Touba war nañ cee mën a def jàngat yu rëy ndax wax na ci ñaari baat am na ñaari baat yoo xam ne day dafa wax ne li nga xam ne mënu ma koo ñàkk. li ma xam ne mënu koo ñàkk loolu nag jàpp naan li nit mënut a ñàkk mooy Serigne Touba muy màggalu Serigne Touba gi mu tegaat ci ne. ak lu ko ci mën a fekk loolu baat la ñaari baat la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la kon jàpp na ne président Macky Sall xelam war naa mën a dal li nga xam ne it fa sëñ bi féete ko ci côté en tant que kilifa it loolu it sëñ bi doxal na ko ba mat sëkk kon jàpp nañ ne it fii ci Touba war na noo gën a bàyyi xel président Macky Sall ndax mboolem président bu fi jaar bu ne xalifa ba mu dajeel ah wax jii nga xam ne moom la Serigne Mountakha wax wax gënum koo féete kaw kon loolu beneen mbir la li ma wax léegi jëmale ko ci ndaw yooyu. damay wax ne mënuñoo naxante ñoo bokk dëkk bi ñun ñi nga xam ne ñi ngi fi nekk nekk ay responsable yu mag liggéey bu rëy def nañ ko ci dëkk bi ñun ñëpp kon ki tey liñ mën a jàpp ndaw yooyu nan dem ànd jeeg mag ñan àndaloon di liggéey ca bàyyi xel ne euh, dama yaakaar ne mënuñu ñun gudd nañ ba ba nga xam ne kenn mënuñoo tëb ci benn côté gàtt nañ ci suuf ba kenn mënuñoo bërngu la yaatu nañ ba kenn mënuñoo jaar fenn kon ci ndaw ci ab dëkk bu bëggee doon mag ëllëg day nangoo warmaal ma euh, mag topp ci mag ba ëllëg la nekk ci loxol mag mujj ci moom beneen bi ci des nan bàyyi xel ne ñun ñi fi ne liggéey nan lañ war a liggéey ba kenn ku ne xam ne ah yaakaar naa ne liñ fi am ci ay waa kenn umpaleetu ko ci euh, Sénégal mën na noo jàpp ne it beneen mbir bi ci des it euh, am na ci yoo xam ne it du ma ci sori ndax am na ci ñenn ñoo xam ne nii du du ñëpp ñëpp ñoom am nañ ci ñoo xam ne nii xëy na am na ñun àndaloon. ku mel ne Cissé Lo nekkutu fi kooku lu nu war a lu nu war a càmbaar la nekkutu fi ñoom na leeral seen bopp ba pare parce que ay ay gone lan ca ñi fi nekk ci ay màgget ñu bàyyi ragal gi gone mag du ragal gone. li am solo ba am solo mooy gone dafa war a ànd kub yar ñaareel bi it mooy ñun mag ñi ñu xam suñu bopp gëm suñu bopp fas yéene ñoom it ñu topp ci suñu gannaaw waaye bu nu amee lu nu war a wax lan lan war a wax. mooy président mu gën ñoo dooleel mu gën ñoo jàppale jàppale ay responsabilité ci côté yëpp ban nga xam ne fi ñu war a féete mag ñi ak jigéen ñi ak gone yi ñu mën leen faa féete loolu mooy wax ji ku ñemee loolu nga war a wax président moo ñu war a jàpp au sérieux ci côté politique bi. ndax côté sëriñ gi mi ngi koy doxal waaye côté politique yi moom la ñu war a dooleel wut ay post jox ko lenn ci ndaw yi nga xam ne ay cadre lan ak mag ñi nga xam ne ay cadre lan mag ñeneen it ñu doole leen loolu mooy wax ji waaye lii wax ji du mag ñi fi nekkoon ah, danoo am nu doxalee wala yeneen yooyu moom wax ñu euh, euh, jëm feneen la kooku duñ ci tontu mais li ëpp solo daal mooy ndaw dafa war a yem fi mu war a yem topp ci mag. ba nga xam ne ëllëg bu wadee mu topp ko loolu mooy li ëpp solo waaye ndaw bu fekkee ne Euh, expérience politique mooy xas mag du mbubboo sëñ bi ci li ngay wax lépp euh, dara amu ci euh, mooy wane ne yaa ngi kenn gënuñoo bokk sëñ Tuubaa ci am na ci ay ndaw yoo xam ne dégg nga lu ne wax nañu ko kon foofu boo dee wax di wax jëm ci sëñ Tuubaa ak dëkk bi loolu war nañ koo jeexaat war nañ koo seetaat kon daal li may bëgg wax ñun mag ñi nan am fu la jël parti bi ak suñu loxol bopp ndaw lu ci nangoo ànd ak ñun liggéey ñëw ñu ànd liggéey ah ndaw lu ci bëggut ànd liggéey nag nekk ci yeneen ak yeneen ci say mbir leerul ka nga àndaloon dàq nañ ko ci parti bi ñoo ñëpp ñu xool ban mbir la ñuy doxalee ndax du nangu ëllëgi si biir président ñëw en tant que suñu secrétaire général en tant que suñu responsable politique ñuy nangu benn ndaw jëg di réclamer Cissé wala di réclamer keneen kooku moom lu ñu jël amee ak suñu bopp la. xam nga loolu damay wax ne toujours question la boo xam ne du ci sori ndax toujours damay wax ne justice mooy ki nga xam ne moo war a jël ay dogal ci lu mel noonu. justice ne bu ko jëlee ay dogal ba noppi loolu président yoonam nekkutu ci ñun it suñu yoon nekku ci mbir la moo xam ne justice la amaloon problème justice boobu mi ngi fi jàpp naa ne bu amee ku ci war a wax justice la bu ci justice it moo ci jël ay dogalam waaye du ñun ci suñu bopp wala président wala keneen.